ñii nii lépp xoola nii l'opposition loo am am doole mënoo ko contrer li Ousmane ko wax ñoom ñooñu mënuñu ko dindi hmm. parce que l'administration Ousmane ko gère l'administration xam nga kan moo mën a wax xam nga kan moo mën a mën a wax la justice moo mën a wax Ousmane Sonko dafa juum comme jël nañu affaire bi yóbbu nañ ko cour suprême yóbbu yóbbu nañ ko euh, euh, nu mu tuddati hmm. yóbbu na ci yoon. yoon moo mën a Ousmane Sonko li wax nii. wax na dëgg wala waxul dëgg. mais grand est-ce que cour des comptes cour des comptes bu génne cour des mhm. na naatable les gâchis qui ont été euh, faits durant président Sall am na ay rapports yi nga xamante ne teg nañ ko euh, ci kaw tableau euh, les autorités compétentes Bougane Gueye Dany on se rappelle que amoon na benn conférence de presse jotoon na ko def cité un ministre qui fase partie de ce pouvoir là ba waxoon sax benn banque. waaw li dama dama lay wax li lay wax dama leer wax leer lu leer xam nga boobu noonu le gouvernement même le ministre dugg ci wax ci man je te parle de de ces dernières convocations xam nga nguur gële. Mhm. bëri na li bari suñ doon wax li fi li ci jaaduwul li ci nekkul woon. yoon moom fii lañ on va passer le reste de la nuit. d'accord man je te mhm. li xew nii. Mhm. dama ne. la position de Bougane la position Yérim sekk demul la position de Madiambal Diagne la position de de de de de de de euh, Sall la position de Amadou Ba électeur bi c'est lui seul qui a le dernier mot pas le juge moom moo war a taxaw moom moo war a taxaw. d'accord ni nga fi nekke woon boobu ba léegi. Mhm. d'accord naa ci votel naa la. yow li nga fi nekk woon d'accord ma ak yow votel nag bu boobaa. Mhm. gis nga. wax ju bëri day wàññeeku on n'a pas besoin de trop parce que c'est pas parce qu'on qu'on crie que ce qu'on c'est la vérité nit ñi c'est pas parce que dañuy ñëw plateau télé lu nekk ñu wax ko fa que li ñuy wax dëgg la hmm. le dernier mot revient à l'électeur et le 17 novembre le électeur bi dina wax ku ci nekk ni nga toogee woon d'accord naa ci wala d'accord ma ci d'accord alors Euh, ñu revenir at euh, à la question concernant la sortie de Y'en a démb gannaaw ba ñu defee li nga xamante ne moom mooy seen conférence de presse euh, gis nañu les acteurs politiques tamit la société civile ak ñenn ñi indi li nga xamante ne moom mooy ay réponses Birahim sekk tamit sax mu ngi appuyer leurs appréciations ñu tolloon ci contexte boo xamante ne gisuñu woon le mouvement Y'en yow mii nekkoon nga ci biir yaa ngi ma doon wax nekk jot nga quitter li nga xamante ne moom mooy cette structure 2014 ak 2015 sortie de Y'en a marre ak si contexte bu ñu nekk nii est-ce que c'est le moment. xam nga li ma la wax sànq dama ne la. waaw su ma koy juger dama koy juger par le fond et par la forme. d'accord le fond d'accord naa ci ñu wax ne war nañu romb moment surtout moment bi ñu toll nii. Mhm. di un leader parce que dafa ne dafa am ñoo xam ne tey jii laa gis nga. su su su le premier ministre le premier ministre bu génnoon ne weer waa ngi dinañ génne lii du weer bi mais da nga koy tëj mais sénégalais bi xool xam na ne lii weer bi la. Mhm. léegi ñooñu ñooñu ñii def noonu ñii def loolu. kenn mënu leen forcer ne leen bu premier ministre waxee da ngeen war a wax gongo kenn mënu leen ko force loolu je suis d'accord ak Y'en a marre ci li mu wax bëri na sorte yoo xam ne pour man ñun les priorités sont ailleurs loolu je suis d'accord. mais man bi ma gisee Y'en a marre génn man dama doon wax naa ni il devrait avoir honte di génn di wax. sur le débat politique parce que dañ nekkoon ci contexte boo xamante ne euh, gisuñu woon leurs actes aussi. Y'en a marre avoir honte gis nga man j'étais membre de Y'en a marre te ba mu fay nekk yàgg na non bokk naa si ñi njëkk a dugg. d'accord man j'étais euh, coordonnateur du mouvement Y'en de Thiaroye Thiaroye sur Mer. d'accord. maa ngi dugg yaanaama suma juumul deux mille onze ah deux mille onze xam nga bañ ko commencé daal xam naa ne teguñu ci ay deux mois trois mois ma dugg ci mais je te dis man c'est ce mouvement là le mouvement a perdu de sa crédibilité le mouvement a perdu sa position le mouvement a perdu ses grands hommes. d'accord mouvement bi instant bi. Mhm. yaanaama lenn rek moo mën a tax mu dem. muy lan. ña fa nekk ñëpp dañ fa ña fa war nekk ñëpp dañ fa war a dem nekk gis nga ces têtes là qu'on voit les Tchad Aliou Sané ak yooyu il est temps à ce que ñoom ñu dem gis nga gis nga dafa am xeex yoo xamante ni parfois jeunesse moo koy xeex. d'accord ñii ñii fi ñu toll mënatuñu xeex xeex bi il faut que ñu bàyyi que des jeunes de nouvelles têtes viennent assurer la relève mënuñu ko parce que ñoom day lox leen ba si yàgg am ñoom bu ñu demee affaire bi arrêté il faut que ñoom ci seen wàllu bopp gis nga àdduna gis nga ñun xam nga mooy bi. Hmm. les mou suñu regroupement yi ils refusent de faire éclore certaines têtes. d'accord de nouvelles têtes du ñu génnee têtes yu bees mais grand modestement c'est des amis ah encore une fois c'est des amis Malal amatul jot bi. Mhm. Malal il est chroniqueur télé. Malal li muy wax noonu li est-ce que li muy wax fële ça engage Y'en a marre. Aliou Sané mais amatul jot bi. il est absent dix dix dix mois sur douze mois. la euh, sortie bi nga xamante ne. Thiat xamul lu xew Sénégal dama lay wax Thiat c'est un ami. Mhm. Thiat xamul li xew Sénégal. Thiat laa la wax Thiat. xamul li xew Sénégal mais tu peux pas être absent dix mois mais attention il faut que tamit gis nga suñu mouvement yi dañoo yabaate quoi. gis nga ay ay ay man attention comme la nature gis nga mouvement yu ci bëri de c'est des mouvements dépassés. yaa naa ma grand xeetu na de. mais ñoo ñoo ko xeexandoo yaana ma saa bu ñu wàccee ci terrain bi xeex naa xeex naa xeex ba xeex naa xeex ba xeex fu kenn nekkul. 2012. Hmm. xamante ne ñun ñëpp suñu biir. lan moo expliquer euh, que le départ. muy grand booy wootee xam wolof Ndiaye ne lu waay di wuyoo da koy nduru. waaw gis nga l'incarnation de cette sentinelle là sentinelle boobu sentinelle boobu. Hmm. dafa am ñu ko war a incarner ñoo xam ne dafa méngoog seen jamono. d'accord mais mine de rien grand ñun ñëpp on a on a quarante ans et <laughs> xeex bi mu am duñ ko nañ jox ay booy booy yi ñun ñu encadre encadre leen ñoom ñii bu di yaramar xam nga bëgg jëm affaire yi parfois tu da ngay nekk ci ay privilèges doo bëgg mu rëcc la. Hmm. nga nekk ci ay privilèges bëgg à chaque fois di incarner le mouvement Y en a marre grand le mouvement Y en a marre fait plus peur. gis nga bi ñu waxee démb ba pare kii kii bi état bi xam naa ne noqu leen fële non sax jaxat le mouvement Y en a marre ne fait plus peur le mouvement Y en a marre n'est plus respecté le mouvement Y en n'existe que de nom Y en a marre amatul Y a marre amatul grand nit ñi nekk fi xoolal xam naa bu baax falaat bokkoon maa ngi nag gis nga gis nga Karim Xrum Xax bi man ak moom presque ñu ñu ñoo bokk jour ba ñu génneendoo Y en a ñoo ñoo nekk doon Y'en a marre ñoo bokk jour yi ñu génne doon Y'en gis nga Y'en a marre Y'en a marre est dépassé ñoom nag su ñu bëggee Y'en a marre continuer il faut que ñoom ci boppam ñu génn ci jox ay boy yoo xamante ni ñu bees lañ am nañ niveau intellectuel bi am nañ am nañ euh, niveau d'engagement bi am nañ loolu yëpp ñu bàyyi leen ñoom ñu diriger mouvement bi. mais euh, euh, ñu doon diriger Y'en ay kilifa ay caat. mais grand mine de rien 2012 ak léegi ñaata 2011 ak léegi kañ la ça fe 13 ans booy yi xamuñu caat booy yi booy yi nekk booy yu bees yi booy yi 14 ans yi 15 ans yi 18 ans yi 20 ans xamuñu caat grand xamuñu caat xamuñu xamuñu xamuñu kilifa xamuñu Aliou il faut que ñoom ñu déplacé wu parce que sincèrement dañu yaakaar ne doole ji ñu amoon ñoo ko am ba léegi te attention te nag wolof ñaar ñooy na ku wéet xam sa bopp. ñoom ñooñu. il sont incapables de regrouper cinq cent personnes instant bi Y en a marre mënul regrouper cinq cent personnes parce que gis nañu Aliou Sané kàddu yi nga xamante ne sax moom la wax nee na par ailleurs waruñu jël un opposant investi euh, sur les listes électorales pour des élections législatives euh, mi ngi wax Bougane Gueye Dany ne devrait pas être traîné en justice waaye tamit mi ngi appuyé sur euh, Cheikh Yérim ne waruñu ko yóbbu en prison pour avoir contesté position yi dama gën doon na a am portée dama sur le fond position boobu noonu ñu wax noonu. loolu na gën a am porte mais dama je te parle de Y'en a marre. d'accord tel qu'il est aujourd'hui Y'en a marre n'est plus le Y'en qu'il était te loolu il faut que ñoom ñu xam ne seen temps wu seen temps passé na ñu jël ay booy ñu gérer loolu je suis d'accord si lu ñu wax noonu sur le fay je suis d'accord que man pour man li ma la wax sànq élection mooy tàqale ay hommes politiques. d'accord position ku nekk électeur bi carte bi moo koy moo koy moo koy sanctionné. positivement ou négativement parce que tamit soo demee élection am zéro virgule zéro virgule dix huit pour cent wala zéro virgule quatre pour cent. Mhm. mais amatoo waxtu yenn baat bi booy wax tamit di nga ko wàccee. loolu moo tax man je voudrais à ce que man je je suis très constant avec moi-même quand les gens ont parlé de parrainage yooyu dama ne bàyyi leen gars yi ñu dem suñu demee ku ne xam boppam. d'accord filtre yàgg dafay am gis nga lii tamit c'est yaanaamaat ci boppam yaanaamaat ci boppam. Mhm. pour man du ñoom même su fekkee sur le fond on peut être d'accord mais ils sont très mal placés parce que mine de rien on vient de ñoo ngi génn ci ay coow lu bëri coow lu bëri coow Sénégal yëngatu kan moo leen dégg ñu wax. kan moo leen dégg ñu bouger kan moo leen dégg ñu kii ma beaucoup de gens pensaient que le mouvement était mort que, voilà. parce que benn moment leen kenn reproché wu leen le fond. Mhm. on les reproche où fan la ñu nekkoon. Aliou Sané moom avant les élections jotoon nañ ko fi jàpp. waaw mais d' accord yàlla euh, ay Aliou Sané ko jàpp d' accord am na mérite boobu mais buñ bañ ko jàppee tam ba mu génnee dafa noppi. Mhm. mu génnee dafa noppi. dañ ex non dañ ko wax mu noppi ba élection yi jeex ba mu déggatoo beneen sortie ay yaanaam euh, Aliou am na mérite lu nekk xeex na benn moment ñu jàpp ko mais dama lay wax lenn da ba mu génn tam dafa noppi déggatoo yaanaamaar kenn malal ñu fal ko ñu fal ko euh, ce machin là. seize euh, seize lañ ko fal. mais <laughs> grand kan moo fa desati. ñu waa fukkeen ñoo fa nekkoon nekkatuñ fa yaakaar naa suma juumul gisatuma leen parce que dégg naa lu benn sorte bu ñuy wax boo xamante nii tamit nekk dafa mel ni nekkatu Y'en Simon il est plus de Y'en a marre ku fa des grand il faut qu'on arrête il faut qu'on bàyyi caxaan yi ñun de parfois xam nga lan la gis nga fii fii mhm. tubaab nee na une forêt qui pousse moins de bruit fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe ça c'est un arbre qui tombe léeg-léeg a les y, yoo xam ne nii am na boy yi nekk ci toll nekk si jamono il faut que les organismes euh, pour la survie de ce mouvement ñu yëkkati mouvement euh, ki nga xamante ne moom mooy Moussa Sow moom mi ngi ne Y'en a marre fait un clin clin d'œil eh, li mu wax ni dafa am solo li mu wax ni dafa am solo parce que non attention li mu wax ni dafa am solo bu baax d'accord parce que ñu bëri nag loolu la ñuy yaakaar dañuy wax ne ñii ils veulent montrer que ne ñoo ngi fi pour continuer à avoir leur privilège mais ñëpp xam nañ ne Y'en a grand nekkatu fi nag. d'accord Y'en a nekkatu fi Y'en a ñun dañ daan regrouper bi Y'en a doon nekk 2012 ak yooyu noonu on regroupait milliers et milliers de jeunes mais Y'en a marre man wóor na ma ne Y'en a marre regrouper sax 300 jeunes mais grand il faut nañ des foofu noonu ba tey sànq nga tudd ki nga xamante ne moom mooy euh, Abdou Karim Xurum Xàkk temps yi tamit nan nga gisee sorties yi nga xamante ne mi ngi koy def et surtout les euh, ripostes qui sont euh, visées à son égard. xam nga yiri Karim Karim dafa doon nit koo xamante ni très contrasté Karim moom c'est dafa neex a comp dafa naqare comprendre. d'accord. Karim Xrum c'est un ami nag c'est un ami donc euh, je pense fi nga toog ni doon na fi toog di def émission c'est dafa naqaree comprendre. d'accord Karim dafa naqaree comprendre Karim je l'ai dit ça doit faire plus de deux ans xam nga trois ans ma ne ko Karim. moo mhm. tax su ma ko déggee muy taxaw naan ay kañot ak ay kii man ay reetaan la may def sax ma ne ko Karim yéen li ngay xeex ca mbedd mi nii di génn di xeex Karim xar day weesu mbote mënoo di nekk fii chaque jour ñu lay xeex dala jàpp di dugg kaso beeg yooyu demal assemblée organise-toi mais élection législative élection législative mais dañ koy préparer. d'accord mënoo toog ba mu neex la ñu tout à assemblée Karim moom nga wax trois ans ngi ne ma ko grand jëm leen fexe ngeen ut seen liste yéen activistes yooyu noonu parce que tamit il faut que vous entrez dans le jeu démocratique gis nga tey jii wax dëgg yàlla Sénégal on a perdu tel on a versé tellement de sang pour pouvoir mettre cette alternance là. d'accord tamit di xeex di xeex di xeex di xeex mais yow li ngay xeex bu dee yow rek la yow da nga dëkk bee xeex dëkk bee tax ngay xeex boo génnee kenn doo topp yow rek yaay dem mais yow kañ demal assemblée sénégalais yi bu dee ñoom ñoo la yónni ñoom ngay xeexal ñoom dinañ la jox sax si dinañ la voteel nga dem assemblée di la fa représenté gis nga xam nga kan moom muus ba pare xam ba pare il il se il avec la tête pas tout simplement avec le cœur muy Guy Marius Sagna. Mm-hmm. Guy se bat avec la tête il loolu la ñu demandé Guy ba mu ko Guy. sénégalais yi à quatre vingt quinze pour cent des sénégalais koo ci wax ne la qui est qui est le meilleur député ci euh, quatorzième législature bi mu ne la Guy Marius Sagna. Mhm. parce que dafa jàpp ne moom kat li mu bëggoon di ko ñaxtu di ko xeex gii Marius Sagna ma ko doon xeexal. est-ce que yaa ngi dégg bu baax exactement léegi yow bu fekkee yow li ngay xeex yow rek nga koy xeexal yow bu dee diine ngay xeex sax jullit yi sax gisuñu ne yow ñoom ngay xeexal. mais dafa jar wàcc ci télé bi di xeex. ngay gis nga ñun sa gis grand instant bi Sénégal dañu war a fexe ba dëkk bi apaisé wu ñu nekk si jàmm ñii ñu xam ne dañu leen a fal. waaw ñu liggéey ci jàmm. Mhm. am ay résultats ci jàmm bu dee amuñu ay résultat sénégalais yi mais nga taxaw nga wax ko nga ñu jëlee leen fi. voilà euh, grand. nga laaj tamit dañu leen a war a may solo trop. parce ah. que même ci may boobu noonu falaa bëggoon ñëw sax.